auzu billaahi mina su baax defoon jëmm mooy ruuxam nga maa la ko wax daa mujj doon jege baax ña ko xëy baax su defoon jëmm mooy ruuxam nga maa la ko wax daa mujj doon jege mbaax ña mos ko xëy nañu baax Cheikh Abdou yàllaa ko jox mbaax ak dundam ca la jeex jëfam ya ak wax ya léppay mbaax ndoxam tëna téex sëñ Abdou daa sàmm woon sàmmaale ñam ame woon caawam musulu amoon naw fit tey ñeme woon ragal boroomam ba muy melxat ci xar kanamam ba kuy mindee far ko tey ngir yàlla fees na jëmmam boo ragalee yàlla xàkkan nit di xëy la ragal ragal ga yàlla waral ñun ñëpp xëy ko ragal ndaxam du tee aajo jootee wal mu xëy yewenal rafetalal njort la la daa wax mu mel na fetal ñaanam su ne tëf su lor way dal nga for jariñu tëfa maraw kanum suy faj aajo seere nañu fajal na ay aajo aw nit baadahu ñu ne xiim ku mayewul wara mën a fay bor wallaahi azim am nañu jàkkoon ca baawoon abdu xetti li leen ji yëgal mi ngi boof cim koom te kenn gisu leen kóllëre sàmm ca war buur yàlla moo ko tëral te it da koy laaj su bis baa saahi leen ndigal bilaxti aw fu ndigal laaj yi wallaahi ajal jëfe ndigal mooy li war ab jaam saxalal sëñ Abdu daa dëggaloon saadix la woon bu wéral jaamook liggéey ca la nekkoon mos la dox di fétal xañoon na boppam lu dig jot mos laa di moom ngir jaamu yàlla boroomam jox na buur la mu moom tawat du xam farataam tayit du wàññi yitteem tawat du tee jàpp lay def mus la julli di tiim du xam farataam tayit du wàññi yiteem tawat bu tee jàpp lay def mus la julli di tiim baagante jàkka ja ak biir kër ga lëf du ko dog tawak li wag wére deeyam ay mbiram dafa jag diine du maslaa ca da nga cay dox mu teg la ca kaw nga ñàkk caa dox du maslaak yow tayit du la naw ka diine saf yaa ko xëy saf diine rek ka ko ñor kum bëgg ngir yàlla mooy tax ab xolam dafa ñor daa ñor ci kam yàlla ak kennal ko ak bëgg ko ak nangu koo jaamu ixlaasan ba xëy jege ko da ñor ci gëm yàlla ak kennal ko ak bëgg ko ak nangu koo jaamu ixlaasan ba xëy jege ko yàlla defoo ko mu dim soppeem te dib xaritam lum sakku xëy am ko hëyaa saahi nee du sakku addina taxu koo jóg da koo fase woon daa seexlu woon ko gannaawoon lépp sang la woon sang bu daa sang kum xëy sang dëgg dindi sa tër laajal ma ñam sang danga xam lii ma wax na nga yër xikam yàllaam woona loo laaj xel ma xel li nga fab xal masaakil da jaagaa woon bi duuni rë yépp xabiir la woon lu ne ab xam-xam bu wóor la caam laajal ña daa teewe ay géewam ñu wax la laam dangay indi fan taxsis googa fan mu wér mu xam ca ca xamul laajal ñoñam ñamu yar ilmu tibbin ak funoon ya ca des bu ne ci am na ci ilmaam wax ju wér la du sos dadaa wax ak yow ci feebar xam cosaan la bu wér joxoñ la lay saafaraam cheikh abdou na cër docteur yami ko nangu nañ ak xamam ci bu wér dañ daa wax ak moom ci seenu wet mu watt ñu far sëñ abdu wet googa laal yaakaar ne googa la xam ragal ga yàlla waral bul yàlla may ko mu xam sopp lu woon lool ca kaf yaag ga ak yu ni mel aajoom ci nit ak joxam nit cër te daa ko sagal ngay doom di taalube mbaa ngay mbokk mbaa di xarit cëlmaay lu jëkk la ngay jan lool mu faj sa mébét basaasatul wajhi tarxiiban lakum ba nga dal mu laaj la sa yaajo faj sa yaajo saahi ajal taaj lay teraangaam di berndeel xeeti bernde yu ne ñamam ya ak naan ya ngay jan lool ci wàllu gu ne xellil xaral teg ca xollil bëkk néeg yi di dig ñamam yu sell ya léppay teew bi duuni xaraj xelil xaral teg ca xollil bëkk néeg ya di dij ñamam yu sell ya léppay teew bi duuni xaraj téere borom bee xasiiday maam ja ñooy alalam xaalis du denc ko ron tappeem ya rekk naam lallik basan fekk ca biim yoon yoon la di xew sëñab du xaalis yëgal xiimaam fi moom du ko naw loo andi naw ko faral lal toom nga rekk yëgal mooy denc waay ba amul woon banque saahi xamal fatte na cay limi lim ngir yàlla rekk la fat xolam ba yàllaa ko peek moomet le jàppe xarit àddina xuus na ca ak sàmmoom ba génn taxul yóbbaalewul ter yérew gàkkul xasal te fëggul jëf na fi lum war a jëf bam jeex te kenn sikkul tooñul boroom tooñul nit ndaxam sikkalul toj na nay barab ngir liggéeyal yàlla saahi yëgal liggéey la daa boole ak jaamu yu kenn yëgul lebul borit buur lebul baadoo la kenn xamul soxla sëriñ ab du xayrallaahi maa ko yaxal lum song buur yàlla dal koy far mu dal di tëral yàllaay ka waajal ko def ko dann jox ko fetal ci pattu lay jam du diir mooy yàlla jox na ko bal du sànk bal lu mu diir jam rendi ba tëral ñëpp a bëggoon abdu musa xol leer nga nangu dogal bëggoon nga sañ abdu teg war maal ko daa ko diggal soppeem yi ñoo ëpp ñay njëbbal ci moom saxalal sa ñëpp du mos bëgg miin doo bàyyi saahi mosal bokkam yi ñëpp ko soppoon kenn kenn desul laa siyama ñi mu bokkal Cheikh Bachiru yëgal njëkkeel ma Cheikh Moustapha wàccal ba mu jëli ku ne ci ñoom sell ngaw soppin ko maa ko yaxal Cheikh Muntaxa mile ak soppam ko buur du xamal mi ndef dayoon ba da soppoon te daa ko fe fësal sëñ Abdu jàmbaari xel doom géej la yow tefesul segam mënoo ndox te may toolam murit wagasul loo xam ne sooy def ko nuru yow ab murit ba ci col sëñ Abdu xeebu ko ba ci maxtooma moo ko waral yàlla na buur yokk ay leeram njaboot gi wéyal naalam yu teddi buur aar leen yu sax ci ndiggal yàlla na buur may ak wér nuy murit yu dëggal ëllëg ñu jàllenu amiin xat bi nee nu ajal yàlla na buur may nu ak nuy murit yu dëggal ëllëg nu jàlle nu amin rabbi nee nu ajal allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yàlla na borom fayal sëñ abdul hakim bi jaahi rasuli ku kenn dool fàtteete addina du ko fàtte lislaam du ko fàtte yoonu murit du ko du jullit xaqan fes dell kum jullit ci wetam yépp murit sadiq bu bëgg sëñ Tuubaa ba dawandoowu ceeg kenn mos jaamu yàlla ba dara sa fatu ko lu dul boromam moo tax musta am coonub àddina ndax coonub àddina ki àddina soxal rek moo ko yëg sëñ Abdu dundam gépp ab noof lay la daa mos jaamu yàlla ba mënatut a jëng jëm ci lu dul ngërëmul yàlla ca bam feeñee ba niñ ko noppee gis man shabba ala shay'in shabba alayhi boroom xam-xam yi wax ku doon gone ci lu baax ba màggat lu baax ngay màggataale looloo doloon sëñ Abdul Hakim kenn ku bëgg lislaam boo dajeeg sëñ Abdul Hakim sa bëgg lislaam dana gën a dëgër sa yitte ci lislaam dana gën a yokk waaye ku di murid sadiq ak murid saf la boo dundeeg sëñ Abdul Hakim wala nga fekk jataayam ak taalu bi dana la gën a saf isaan maa ngi fàttaliku ñëw gu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara yàlla na suñu borom yokki leeram ñëwoon njaareem seet si sëriñ Muntaqa booba sëñ Mouhamadul Mbaara mooy xalifab sëñ Touba waaye bi mu bëggee kaf ak sëñ Abdul ko daan defee ca bu njëkk rek sëñ Abdou dàggantu xar kanam bi soppeeku mu ree na ko ah, fi mu ne nag sëñatuma kaf yow ndax yaay sëñ foofu la sëñ Abdul Hakim nekkoon daan jàngale ak murit te laa di laabiire ñëpp ngir ñu xam lu di murit sëñ Abdou lakkaram moom sëñ Abdou Latif nettali na ma ne sëñ Muntaxa daf maa yónni ne ma damal wooye ko nettali naa ko ba tàyyi nee na naaj wi tàng ma tiit ba dawee tànki neen egg si ndeysaan mu xool tànki neen yi ma indaale mu yërëm ma ne ma ana say dal ma ne ko man kat bu ma sëñ bi nee naa la woo ci laa jaxasoo ba bàyyi fa dal ya nee na mu ne ma waaw waaw yoon yoon wi de ku ci noppee tiit noppi cee noppi noppi cee jariñu ku ci noppee tiit noppi cee jariñu mooy am murit waxtu wu ne war nay tiit ci diggante ak kilifaam loolu la ko sëñ Abdu doon bëggoon a wax muy koo xam ne dafa gannaawaloon àddina dinaa ci joxe benn anecdote bu ndaw am na bis boo xam ne dañoo jàng ci fulku bi bay jóg benn waay ñëw di ko nuyu indaale enveloppe xam naa ne enveloppe ba lu baree nga ca bi ko waa ji ne jëyi loxo ba di ko nuyu am am kaamil bu ñuy jox sëñ Abdu sëñ Abdu bàyyi enveloppe bi mu mu téye kaamil bi jóg ak mu téye kaamil bi jóg moom. nit doonoon ku bari baatin waaye ñoŋal baatinam ba kenn du ko xam yàlla mayoon ko cër waaye mu ñoŋal cër ba téye ab cëram ci digganteem ak boromam te fooyewu ko dinaa ci nettali loo xam ne dana firndeel ne sëñ bu du ko saf sàpp ak boromam la ku ñu wax sëñ Malick Jigal moo ma ko nettali sëñ Saali woo ko yar sëñ Malick Jigal doomi sëñ Bàcc Jigal la nee na ci njaareem damaa ñëw ba ci penku jumaa ji ma génn jës bu mawaahibu muqaddamatul amdah di ko jàng nee na booba jànguma ko nag ngir dara dama ko doon jàng waaye bi ma koy jàng ñaari junni képp laa ci fas sëñ Malick Jigal mi ngi ci réew mi di ma dégg xam naa dana dégg lii nee na ñaari junni képp képp képp képp laa ci fas nee na bi ma jàngee ñetti xasida yi ba mu jeex ma ne bëreet dëgmal ko sëñ Abdul Hakim ñëw fekk ko ci campagne bi mu toog njaareem nee na mu nuyu ko dara laa ko waxut